gis nga Adji Sarr bi mu duggee ci bureau Maham Diallo mu di ko déglu man dama jàpp ne warul woon génn bureau boobu parce que aussi yàpp sénégalais yi mënta weesu aji naan dama doon fen pour piéger yaa xam nga yéen ñu bëri dañ jàppee Adji saar ku dof wala ku nàngam aji doful jën a jàpp ko aji boo gisee ñi mu enregistré ñëpp ba ay journaliste taxaw naan dama ko ragal ndax enregistrement yi xam ne aji enregistré na leen aji doful jën jàpp ko dërëm wokk ko mais aji elle est hyper ñi wax ak ñoom ñëpp da na a enregistré bii yoon nag moom lañu ñu enregistré nooy PG nit mu enregistré la ba pare li mu wax ci audio bi dafa leer naññ naññ naññ naññ Sénégalais yëpp déglu na audio bi audio bi boo koy déglu xam nga ojo euh, bi day day firndeel benn mbir day firndeel na tey jii dégg naa am na ñu naan non léegi dossier bi nañ ko classé dossier bi kenn du ko classé dossier bi kenn du ko classé parce que dossier bi dafa am juróom fukk fukk ak ñeenti nit quatorze personnes yu ci ñàkk seen bakkan y a quatorze morts ci dossier bi plus de quatorze morts sax ci dossier bi après léegi on dit que dossier bi dañ ko war a classé dossier bi du dossier bu ñuy classé jamais. te euh, Adji Sarr boo otul moom rek elle risque la prison nee naa keroog ba muy jàkkaarloog Maham Diallo warul woon génn warul woon génn foofu keneen bu taxawoon ak juge bi naan ko non dama doon fen ah mais fen bi dama ko doon def pour piéger nit kon aji kan la wax dëgg kañ la wax dëgg kañ la wax dëgg dégg naa nag gars yi ils sont gis nga ils sont très futés dañu yaakaar ne mën nañoo nax askan wi ñeneen ñi naan aji da doon fen kon aji lu mu wax li mu li mu wax li mu wax foofu ay fen la yëpp ay fen la déedéet yépp ay fen de aji il a avoué elle a avoué que lii c'est un complot aji elle a avoué dossier bi dara nekku ci ba pare ñun dégg naa ñu ne neen day porte plainte kan <laughs> aji dégg naa ñu ne dañuy perte porte plainte ci Mbaye Mbaye MC ak lan ak Cheikh Bara Ndiaye dégg naa dégg naa dégg naa ñu ne dañuy waaj plainte pour loolu mais ñi ku ñu yëpp dañu yëpp sénégalais yi mais ils vont payer parce que dossier bi mënul am ay nit yu ci dee ba pare ñu xam ne c'est un complot jàmmanteloo nit di ko laaj ay ADN <laughs> gis nga am na ñoo xamante ne nag <laughs> jamono jii euh, dañ leen dañ leen dañ leen tuumaal liste boobu am ñu ñu tuumaal ñu toog ci plateau yi di yuuxu naan ma ci ah, bokk ma ci man nangam Me El Hadji Diouf moom kenn waxu ne da cee bokk mu yuuxu naan mosumaa ñam aji nee na mosul mos mos moom moom maître nee na mosul mos de loolu la wax. nee mosul mos waaw ñun waxuñ ne da ngaa mos de yow yaa génn mosoo mos am na ñeneen ñu yuuxu hmm? ñoo ñëpp ale yéen ñëpp test ADN kuñ ci tudd rek da ngay dem def test ADN waaw ah, yéen doon laaj Ousmane Sonko na dem def test ADN <laughs> mais nañ def test ADN yéen ñëpp di ngeen ko aji ku mu tudd nga dem def test ADN di ngeen xam tuumaal gor ni mu mettee gor gi ngeen tuumaaloon dafa dafa am soxna am njaboot am ay wéjur nekk nit ku senegal yaakaar ngeen di ko jaabaa jógee ci réew mi Sonko lii Sonko nangam Sonko aj Sonko nangam aji Sarr li mu wax démb leer na li mu wax démb leer na ñëpp senegal yi dégg nañ aji di wax buy wax sax dangay ruus gàcce ngay am ci ban république nga la nekk aji Sarr firnde na ne lii yëpp ay complot la wax na ci biir ojo bi yëpp. bi hmm? ko bàyyi mbay ñas MC di ko wax ne ko euh, waaye buñ la nax amal kër amal nangam amal nangam waaw léegi nag ñoom amuñu lu ñu wax nee nañ bàyyi bàyyi mbay ñas MC da doon doxaan aji saar <laughs> ndeysaan ba pare amoo koy weer ku dul sa sëriñ yow nee nga mooy sa sëriñ moom nga yaakaar ba pare moom nee nee nga nee nga koy piège nee nga sa sëriñ day fen <laughs> loolu la wax. xam nga ça veut dire que mais nit ñi dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy caaxaan dañuy caaxaan dañuy caaxaane Sénégal dañu nekk ci niveau boo xamante ne léegi nit ñi dañuy caaxaane Sénégal mais tey jii nag je pense que ne tey yeneen audio yi laay wax nañ ko génn comme ni ñu génne audio yi xam nga mbir mi dafa war a leer naññ naññ naññ naññ waruñu toog tey jii aji Sarr am aji andil Ousmane Sonko. di convaincre président ausman Sonko muy dem muy dem tribunal di wuy ji mais ak lii nii xam nga dafa am benn euh, juriste bu doon waxal tey ce matin ñuy waxtaan mu ne ma euh, audio du preuve bu ñu demee ci juge bi audio duñ ko jàppee preuve ma ne ko mais yow bi ñuy jàpp euh, bi ñuy jàpp kii Guy Marius Sagna hmm, ak Assane Diouf mais lu leen jàppee. Guy Marius Sagna Assane Diouf bi ñu leen jàppee ay audio tax ñu jàpp ne ñoom dañu bëggoon taal réew mi ci ab audio whatsapp lañ leen jàppee dugal leen ci kaso bi Guy Marius Sagna ak Assane Diouf fàtte yàggu xaju fi beneen bi Ami Collé waykat bi ñu koy jàpp bi ma naan un waa ji unku la unku la hmm? luñ ko jàppee audio lañ ko jàppee moom Ami Collé Dieng léegi nag lii nekk ay preuve yu leer. ojo yu leer audio bu njëkk bi sax daanaka mënoon na tëj dossier bi comme ñoom nanguwuñu certificat médical bi dëgg nañu ojo Mamour Diallo audio bi ñëw dëggal ne lii yëpp caaxaan la 14 morts yi nga xamante ne dañoo ñàkk seen bakken doon ay sénégalais ndek li ñu di tax ñu ñàkk seen bakken yëpp complot la complot bi nag lañu war a xam pour lan la gis nga coow li coow li yëpp xam nga complot bi pour lan la. c'est pour éliminer un adversaire politique kese on l'a fait à Karim Wade mu jàll loolu moom dil la woon on l'a fait aussi à xalifa Sall gestion maire bi mu jàll ñu bëgg ko def Ousmane Sonko mu doon échec Ousmane Sonko dafa jaar ci euh, man euh, bokkuma Pastef li gars yi naan maas Pastef maas nangam déedéet injustice dañ koy xeex fu mu mën a bokk Ousmane Sonko bu fal woon tey jii ñu ngi xaar li mu digg askan wi ñu ngi taxaw fële aussi di ko xool ba xam parce que ñun senegal moo ñu ñor waaye aussi fii képp ko waxul dëgg wax fen képp koo xamante ne yaa ngi yaa ngi yor yor preuve mu leer na lii ay nit mën nañ cee ñàkk seen bakkan ëllëg dëkk bi mën na cee tàkk ëllëg. mais nga xam dëgg gi wax ko waxoo ko naan damay tëddee njaaxaanaay ma ne la complice nga parce que da ngay féetee ci dëgg wala nga féete ci kàcc rek isbul aq wala isbul seytaan moo fi am kon gis nga ñun encore une fois presse bi aussi man mënuma comprendre yéen ni audio yi génn démb mais bu ñu xëyee presse bi waroon nañu waroon nañu relater les audios là parce que ojo yi encore bu bu leen arrangé ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne justice xamul xamul audio prise en du du du du jël en compte les audios mais car ça les ñu jël audio yooyu tëj ci ay doomu jàmbur Adji Sarr dafa yàpp sénégalais yi Adji Sarr ak ñi nekk seen ginnaaw yépp dañoo yàpp sénégalais yi encore une fois yàpp sénégalais yi mënta weesu tey jii ñu jël en otage. un pays pendant deux ans les Sénégalais kii soo en de souffrir ñenn ñi ñenn ñi ñu ñu ñu tëj leen ci kaso bi ndax dossier Ousmane Sonko Adji Sarr Adji Sarr keroog ba ma ko gisee muy dem di wuyu ji palais de justice sobu sol robe mulante laa ne kii daa nopp Sonko je te jure ma ne dafa nopp yow yow ñu ngi lay yow ku ñu violé xanaa xamoon ne ku ñu violé da ngay am sa état psychologique maanaam da ma ah. ay séquelles lay bàyyi comme ni nga ko waxee madame Guèye ku ñu violé ay séquelles lay bàyyi ci yow ba yow boo jàkkaarloo sax ki la violé waaye génn naan wuy ma génn naan moom Ousmane Ousmane ah te moom nangam Ousmane mi ma xamoon ku ñu violé ne def noonu il faut ñu arrêter il faut ñu arrêter te ñiy wax naan dossier bi dañ koy classé ak Adji Sarr wérul ak ay nangam Adji Sarr dara jotu ko Adji dara jotu ko nit pëlëng la ah ñi mu enregistré yëpp ci audio yi bàyyi ba audio yi génn di ngeen dégg lu bëri di ngeen dégg loo leen mësta dégg Adji Sarr doful jën jàpp ko te je presque que nag euh, tey jot na aussi ñu jël suñu responsabilité ñun euh, parce que gis nga dossier bi dafa am ay facteurs favorisant dafa am ñoo xamante ne ñu ngi leen tey ci kaso bi dafa am ñoo xamante ne tey jii euh, ñàkk nañ seen liggéey dafa am ñu ñu ci jàpp. dafa am ñu ci dee ndeysaan dama dégg benn góor muy témoigné démb bi mu dégloo ojo yi xam nga lu mu wax ay fan laay gisee Ousmane Sonko ba ba baalu ko benn góor ndeysaan ma dégg ko mu ne bi ma dégloo ojo ojo audio Baye Baye Mbaye MC Niass mii dama ne fan laay gisee Ousmane Sonko ba jéggalu ko lu ne yàq naa ko Ousmane Sonko lu ne wax naa ko Ousmane Sonko. lu ne lu ne teg naa ko ci deram waaye bi ma déglee audio bii sama xel fi fenn rek la dem góor googu mu ne naka laay def ba gis Ousmane Sonko ba ne ko Ousmane baal ma àq c'est dommage c'est dommage ko bu ñu àggee fii Sénégal réew mi toll fii am ay priorité ñu war a waxtaanee suñu sante war a waxtaanee suñu éducation war a waxtaanee suñu pétrole bi ñuy pasar pasaree fer bi Ah, war a waxtaanee yeneen sujet yoo xamante ne sénégalais yi moom lañuy xaar amuñu programme amuñu lenn lu dul lépp lu ñu mën a def ba Ousmane Sonko du bokk nañ ko def ñu bari war nañoo jéggalu Ousmane Sonko nag ñu bari ñu bëree bëree bari bari bëree bari audio yi di génnee démb benn audio rek moo génn y vingt 27 audio benn audio rek moo génn audio boobu tey jii gis naa ñu bari tey jii. Euh, am kersa kersa la ñu am may wax ñu naan Baye mbay MC da doon da doon doxaan Adji Sarr Baye Mbaye MC stratégie la teg Baye Mbaye MC dafa teg stratégie stratégie bi Baye Mbaye MC teg mooy lépp lu mu mën def ba am information ba xale bi am confiance ci man ba ma mën a détenir preuve xamante ne su ma ko tegalee sama askan ñu xam ne lii 14 morts ñàkk seen bakken lii nga xamante ne tey jii moom moo xañ senegal jàmm li ñu bëgg a def teg as gor ab tuuma li ñu def ni tey jii ba tax ñu menacé docteur Alfousseynou ci certificat médical li ñu def ni tey jii ba tëj Pape Alé Niang li ni tey jii ba tëj Fadilou kayta ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci dossier bii dafa bëri victime te bu doon dëkk yoon la ñu nekk bu doon Sénégal dëkk yoon la ñu nekk je pense que ne tey jii docteur Alpha mais mais Adji saar warul génn bureau ma xam Diallo li mu def délit la c'est un délit li mu def jàkkaarloog juge bi naan ko dama doon fen pour piéger nit dama doon fen pour nàngam ak nangam kañ la wax dëgg kañ la fen waaye ana seen vidéo yi mi ngi yéex de mi ngi ñaaw de ñàkk jom non moo tax nag tey Sénégal. war ñun war nañu war nañu war nañu toog xoolaat ñun fan lañu jëm war nañu war nañu footaat réew mi xool ñan la ñuy tabb dafa jot ñu xool ñan la ñan la tabb ministre ñan la ñuy parce que dossier bii liñ ci tudd ci ay kilifa Mamour Diallo moom vraiment Mamour moom liñ ko liñ ko liñ ko ci tudd ak façon bi ñu tudd Mamour Diallo Mamour Diallo mënta génn. en dem ci dossier Ousmane Sonko Adji Sarr bi non non parce que mais Adji Sarr audio yi mu def yëpp dafa dafa incriminer Mamour Diallo en en en plein couvre-feu ñu ñuy nax ci Covid di dëndee suñu xaalis di ko lekk restez chez vous ah nangami tiital nit ñi moo tax mosuma vacciné wu xam nga man dama ës ñëw naa fii sax kilifa <laughs> gi naan ma. mais eh, maas vacciné wul rek ma ne ko yow nga dem vacciné wu man vacciné wu ma ñàkkuwuma ndeke boobu ñu ngi nax sénégalais yi di lekk seen alal ñu ngi muucu deretu askanu Sénégal balaa maa de ñu ne février eh, euh, février mars coow li amoon ñëpp jàpp ne ñu ne sénégalais yi euh, xiif moo leen génn woon déedéet injustice moo leen génne woon. injustice moo leen gën bés boobu laa gis ay sénégalais yi mer bay attaqué caserne bay attaqué gendarmerie li amoon nag tey ji bu ñu bañee mu amaat na kilifa diine yi génn wax kilifa diine yi nañu génn wax ci lii parce que encore une fois dossier bi ñu teg bi ñu teg jëmale ko ci luy taal réew mi yéen a ngi fàttaliku sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa Mbàkke bi xale yi meree. ba taal réew mi ba ba ba am ay takk der yuñ ci duma ñenn ñu ñàkk seen bakket booy yi wu pour dem pale de la république ñëpp xamoon nañ ni xale yi pale lañ doon jëpp sëñ mun mooy intervenir au nom de tous les xalif ñëpp bàyyi mu sedd waaye léegi dañu dem ba déggatuñ soo su wax d'accord ñu ngi wax ci suuf waaye nañu wax ci kaw ñëpp dégg Covid bii. nga xamante ne ndeke gaa yoo ñi ñu jiite ay sàcc lañu ñi ñoo mën a sàcc dëgg dëgg dëgg ak xeetu sàcc seen xeetu sàcc moo moo moo moo moo moo doy waar dañ leen war a gis nga marché bu ñu ci mën a def dégg naa gaa yaa ngi ci waaj marché mais marché bu ñu ci mën a def ministre bi la ñuy jàkkaarloo ñoom fu ñu génn askan wi dañ leen war a yuuxoo wóob sàcceey wóob sàcceey tuug ci prix sàcc yi ba ne ñàkk jom ñu ñàkk jom <laughs> ñàkk jom barke rasulullah Hmm? waroon nag Ousmane Sonko man jàpp naa ne waratul dem wuyu de nañ ko delloo passeport am nañ ko delloo passeport am lii fay lii ku dégg li xam ne ay caaxaan la nañu jël passeport am delloo ko Ousmane Sonko mu tukki président mag Sall na taxaw ci li koy may mu mën a génn ci réew mi ci jàmb li koy may génn ci réew mi jàmb mooy mu taxaw ñetteelu mandat bi nga xamante ne moo waral coow lii yëpp mu teg ko ci suuf organiser ay élection candidat yi bëri nañ fa ku gañe ñu xam ne koo koo gañe dossier bii nag nga xamante ne moom la quatorze personnes ñàkk seen bakken kenn dossier classé fan kenn ko classé dossier la boo xamante ne tey jii Pape yi dégg naa ko mu wax mais sur le plan juridique il est le meilleur Pape Ndiaye Pape yi nee na Adji Sarr ci boppam mën na mais dañ mais mën na cee tëdd kaso loolu la ñuy bañ a dégg moo tax ko wax ñu saaga la saaga leen ba mu neex leen saaga du dàq Adji Sarr li mu def nii ak ñi ne ci ginnaaw Adji Sarr ils ils doivent payer ils doivent pour les quatorze morts